Adja naroon na maa indi sax euh, li gaa yee tuddee ay caaxaan ci gàmm gi naroon naa ko indi. waaw. waaye damaa puus di puus di puus di puus lu ma puus daj ci yirim. yirim man. yirim daal vidéo yi ci internet ba ma nga mel ni bu jour vote ba ñi voté je woon ak bulletin Amadou Ba ba xam nga bulletin Amadou Ba ba jour vote bi heure bi daa bari woon ci kër yi ci mbedd mi lool. ci lañ doon waxee naan Amadou Ba ndekkee nit ñi bëgg nañ ko ndax ku vote ji boo ñëwee indaale bulletin mhm. Amadou Ba ah waaw jour vote vote ji dem vote ah. ci lañ ñu Amadou Ba mii nit ñi bëgg nañ ko trop sax yirim dafa am yu bëree bëree bari yoo xam ne daf koo weddi woon ca TFM ni moo ko waxoon daan ni Sénégal yi suñ ko bëggee baar duñ passé dix secondes ci moom waaye mënuñoo tàllal benn vidéo boo xam ne ay waxam la mu wax ko dañuy daggate ay waxam mhm. ci biir loolu itamit Yérim dafa wax démb nee na dañ koy menacer waaye moom amul lu muy tiit li ngay tiit kii di ko tiit Sanjo di ko tiit Omar nee na moom du ko tiit maanaam moom dee sax di gën a metti tiitu ko tiitul kaso tiitul dara. waaye tiit na. les gars yi indil ko beneen vidéo boo xam ne nag Yérim daa am lu mu doon wax ci ay lobby ay nangam ba yàgg nee na mu tiit. waaw. gars yi nag xaw ma patrouille fu ñu loqalee vidéo yi <laughs> ñu ànd ak vidéo bi te dellusiwaat. li nit ñi ragal yëpp man ragaluma ko. man mos naa bind benn texte ci laïcité homosexualité ak franc-maçonnerie dem ba koy publier ma taxaw. ah bon waaw. ndax la dama ragal. noo doy caaxaan. Hmm? waaw dama lay wax rek. ah am na loo ragal ndekke. am na lu ma ragal waaw. yàlla daf maa bindee noo xam ne nii kenn du ma tiital. je suis incapable d'avoir peur. li nit ñi ragal yëpp man ragaluma ko. bi ci topp mooy kaso. bi ma ñamee kaso ba léegi kenn mëntuma tiital ci dara. ndax kaso dafa am jàmm. maanaam kaso barab la boo xam ni da ngay jaamu yàlla da ngay sport da ngay noppalu te da bind. macha bërëb bu taw feexel. ñetti nga xam ni moom laa nekk ci loxo yoon ñetti fan yu metti la réew mu mel ni senegaal ñuy jël ay nit di leen dugal ci foo xam ne ni ginaar bu baax sax waru ko faa ñu euh, ci cellule yoo xam ni kenn mënu faa noyyi ndax ay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 mosuma wax loolu li ma wax. yow yi fi li yóbbu Sonko dafay bàyyi Bassirou Diomaye. ah lu tax du ko fi bàyyi. dañoo bokk soo xam nag yow des fois nag vraiment <laughs> des nga wax xale quoi. Euh, soxna si. li yóbbu Sonko du fi bàyyi Bassirou Diomaye. ci gàttal. képp ku bokk ci Pastef ñu dissoudre ko. nekk candidat. waa Pastef bin Murra bin Kaab bin Luway bin Aalib. bin Fahr bin Malik bin Nadar bin Kinaana bin Huzayba bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Maad bin Adnaan maam mu mu jur rek maam mu mu am rek ba Adnaan nit ku baax la. Adja lii lañu indi tey muy ay vidéo yoo xam ne bari na lool lu yirim di wax tey bu subaa. mu génnaat ci mbir yi. dëgg yirim nag Omar bun Xataab lii booy mm. tëjee vidéo bi mm. euh, xaw ma lan de waaye moom wane na ne xamu ci leen mu yónnante bi mu ni caraax dugg ci lim ay maamam bëggoon a kii daal ñi jàng nitu daare xam ne ni yirim fi mu dugg xamu ca dara muy téere bi mu ci bind lii nag ñun monté wuñ ci dara nii la ko gisee ci internet ba jàpp ni yirim euh, victime la tey jii ndax ñu ngi koy wëndeel di dagg-daggee ay waxam nañ bàyyi waxam yi ñuy dagg te di ko tegal lépp wala ñu bàyyi fa lépp waaw <laughs> am na ndeysaan Yérim man ma ngaa bëgg. da nga koo bëgg. ndax <laughs> ko bëgg. waaw ne yéen journaliste yow da ngeen koo faa. réew mi dafa war di neex. daa war di neex. <laughs> daa war di neex xam nga Sonko mais il mu am ñu mel ni Yérim ñëw ci média yi. mais dafa sérieux de. Hmm? <laughs> Ah, maanaam ñëw ci média yi affaire yi di neex quoi gars yi di ree gars yi di kaf. Hmm. waaw maanaam loolu. ndax réew mi dañoo stressé. Ah. maanaam mais yërim daal la nga ko soxla ci espace bi. d'accord foog muy génn di wax. Mhm. yërim wax na dëgg. ah. yërim ragalul. ragalul. musul ragal. ah. nee na loolu da ko bind mu taxaw parce que dafa ragal de waaye ñu am na looy tiit mu ne ko waaw waaw. ragaloon na mais léegi ragalootul parce que ay nattu ñooy tabax nit. Ah. yi mu dund ak jaar-jaar yi mu am moo ko tabax ba tey mu mën a dékku yenn yi. mu am fit parce bu nee na kaso bu doon kaso. dund naa ko ba pare mënatuma ko ragal wax noflaay gi nekk ci kaso waaye booy dem indil ko. waaw li ñu waxee métti yi. li eh, xam ne loolu mooy wane ni. Eh, des fois da dama koy faral di wax. Sénégal ñun dañu nappoon. waaw dañoo nappoon. dañoo nappoon de. say discours ah. <laughs> Barke Mouhamed Sonko dina gën a xat ci réew mi dina gën sonn. Ah danu nappoon mais dafa mel ne benn jour maa ngi dégg saa di ko dafa mel ne am barrière yu ñu tegaloon Sonko ñëw. daaneel ko maanaam daa am ñu ñu nëbb ay yérémi da ay maanaam ay nit lay yu ñu benn mit lan ñu doon créer jugee jeune Afrique door ko si ñoo taxaw Sénégal yëpp braqué wu ci ñoom mais yooyu dafa màbb maanaam dafa am benn mit bu ñu doon jaay ay at ci ay nit du moom dong mais dama gis ni mit yooyu dafa màbb te nag dafa ànd ak événement wu Sonko anti mooy ñu décomplexé wu ci ñenn ñi. d'accord loolu moo ñu indi tey ji mhm. yére mën a wax. Mhm. ak avènement wu réseaux sociaux daf mel na ñoom te sóoraale wu ko woon démb. ok mais tey ji lii lépp réseaux sociaux. moo ko jur. loolu nag tey jii moo indi ñenn ñi man damay seetaan nit ba ci àgg surtout ñi faroon ci nguur gële. des fois nga xool ci nit ba ci àgg jàpp ni dañ ko war a yóbbu dalal xel dalal ko. dalal ko loo ko ni nit ki mun na am. Mm-hmm. dalal xel yëri mi lu muy dalal eh, xel non nit ki mun na am mun na ñàkk nguur mun na jeex mais ni Macky Sall dafa ak ñoom bi muy bàyyi nguur gi gëm gëmloon ni war mun na am troisième mandat ba ci ak mu géey gëm leen ni élection du am ba ci ak mu tëgg élection yi tàbbi gi mu tàbbi ci loxo yi ñii maanaam la nostalgie du paradis perdu maanaam liñ téewoon jàpp ni du jeex. mu xëy rek jeex xam ne xale boo koy faral di nga sax naxanteeg moom di wàññi ween wi di wàññi nàmpal gi di wàññi nàmpal ba xëy rocci ween wi mais ñi def mel ne prépare wu woon loolu. ferme gi daal lañ ko ren a bett. waaw des fois nga dégg ci nit xam ne ku ñu war a. d'accord dalal la gëmal ko ni yàlla mooy joxe waaye mooy <laughs> mooy. man rek léegi tamit na de faaw ñu toog gëmal leen ni yàlla moo fi ne. non yàlla moo leen joxoon nguur gi. nangu na ko nangu na ko teg ko ci yeneen loxo. d'accord na mu doon doxee ak Macky mënatul doxee noonu. d'accord maanaam ñu gëm ko. mais billaahi bu leen travaillé ci loolu di nga gis ku gàddu ay dàllam di dox. <laughs> d' ma jigéen yërim lañ indi tey booy di ko def lu nekk nag nañ fexe nag bu buñ fi génnewaat ay poutine ak yooyu yëpp yooyu yëpp jarut indi. poutine du yor teleeg. Hmm. du seetaan télé du xool internet ak yooyu yëpp nañ ci génn. noo gisee booy li ñu def yërim ci ginnaaw bi mu joxee xalaatam démb ci euh, télé boobu mu demoon. rang rang ba waaw booy nag li ñuy def du yoon. du yoon kay. waaw kilifa kenn du ko. du yoon kilifa kenn du ko def nii te euh, wanoon nañu yem rek ci waxu Cheikh Bara Ndiaye bi maa ngi dogg a nag que ni Cheikh Bara rek moom moo comprendre Cheikh Yérim ndax su taxawee ne émission bu bees def ko si bees. sos sos yu bees. foofu rek waroon gis nga lu ñuy gën a dem rek dañ koy gën a ñaat ki muy wax waxu internet xam naa ñi ngi wax ay ñoom kadeer ak ñi ni mel c'est vrai que nag moo leen xaw a tane tuuti mais dëggantaan nag wax yow ma jigéen kii di journaliste Kader mais. di chroniqueur chroniqueur ah. Kader mais di animateur mbalax. maa ngi koy may. Fatou Géwal lëmbal ah jege si ma eh, xëccal. Eh, eh, ajal yëkkatil ma xool sa pointure kii la nekkoon. kii dem jàngi ami li jaasam nekk journaliste nga koy tëkkalee Kader mais. nekk journaliste saay su bindee ñu ne ko li nga bind du dëgg. saay su bindee luñ mais wutal keneen bokk mais jëlal keneen parce que mënuloo nga ne yow journaliste mais jëlal yaa sax nga nekkoon Jeune hmm? Afrique à chaque fois ñoom di sa ay wax ngay joxe informations yoo yirim daal boo bëggee dégg son yi boo dëgg manipulateur la caaxaankat la ah xale yi nag nañ ko bàyyi tout tranquille parce que bu nee man ragaluma kaso te kaso yi condamnation yi ñu ko def yëpp en général après liberté provisoire liberté provisoire lay mujj kon mm. kooku ku ragal la parce que en général ñi ñemee dékku du ñu def ay appel sax ba di ñaan ay liberté provisoire ak yi ne mel kooku booy wër tàppet dëgg nga xam ne yirim mi dëgg yàlla tàppet la mais nañ ko bàyyi nañ ko yërëm mënuñu nag saay su génnee ñu génne ko ay waaram soit moom mooy bàyyi dem toog jàpp wala xale yi bàyyi ba parce que ñoom itam dinañ sonn de seen connexion yi dina jeex de bëgg a topp Yirim mii d'accord day wax ba teppeeku ba teppeeku nga boo yaa ngi koy bind nee na dafa naroon noppi mais dana wax ba teppeeku waa parce que ci affaire kii bi bin yi la bin bin yi waaw parce que booy yi dañ lay sës ba ci miir wiis bi dafa naroon a noppi moom Cheikh Yérim toog jàpp njàmburam uh-huh. mais ak yi ko booy yi di def dana uh-huh. wax ba teppeeku moo tax may mën a bës a gis naa mu def ci benn tiwit di wax ne xaw ma fer ko dagg ñaari daraan xaw ma tasaaroo waaye xaw ma lan ak lan ak lan may mën a bës am na lu mu ci tiwitee uh-huh. noo gisee Yérim uh, dama koy félicité rek félicité waaw ci liggéey bu rafet bi muy def nii am na solo de journaliste dafay bari kii dafay bari day bari ah. koo xam ne boo bindee ñun li nga wax mooy kiiwul noonu waaw ba pare xale di la vaar boo waxee lii wax leen moom est-ce que amul est-ce que du du du euh, du perte des fois des fois mémoire. perte. mémoire. non yërim mii di jàngale. dem bitim réew jàngale kuy jàngale ji kay. yaa ngi sa xel waaye tamit nag yoo te day fàtte. lu loo xam ne gor su war nga koo mën a. Euh, euh, bañ nag wax dëgg yàlla son yi bu di wax tey boo waxee sa waxu démb war naa mun dëkkaloog sa waxu tey su ko defee dinaa naan. mais est-ce que ñun waruñoo jo def lu mu ñu jox ñun ñu jàpp comme ni Assane di wax lu ma la jox rek ja jàpp ci. jàpp ci déedéet. vraiment ah. yow boo de <laughs> demal suuka. demal soo yu laa bëgg. demal <laughs> damaa xam ni yow imaginer la. nga ni nga ni kaso. moo gën a neex. waaw ndax ci nga mën a defee say say sport ci nga mën a jaamu yàlla ci nga mën a defee li ne jëkk jékki waxaat ni sa sama troisième jour kaso. te yow ak métti woon li ngay def kaso sax ba di ko bàkkoo sa kër la gën a neexee. voilà say jongo ma di la romb di la te di la tegal café gi yëpp. ngay wér vraiment nag. Euh, boo wér dee ba yàgg nga wadd kiiwu ma ko daal. ah nga ni ko joxal alaaji joxal alaaji. demal joxal alaaji. Ah, Ndiobo. Mm-hmm. joxal alaaji. Yérim de gis naa njeextalu émission bi njeextalu élément bi. nga ree ree yu mm-hmm. te li mu wax yëpp li ko booy daggat daggate yëpp réewoo mais bi mu àggee ba ci bin murraak bin nangam. c'est que kii boobu kii boobu lëx boo ko yàqal lëx. lëx la yëri war a yóbbu ci yoon quoi man c'est que lëx li mu ci doon def tànk yi bi xaar bi xol bi lëx affaire buy wax loolu lëx lay xalaat quoi lë lëx moom yirim da ko war a yóbbu ci yoon quoi d'accord waaw yéen a ngi tëkkale yirim ak euh, Kader waaw mais man dama jàpp ni euh, daal kii mais euh, Kader a tane mm. waaw parce que Kader li tax mu tane ko Kader tane mooy Kader moom xamul ni départ na mais ñun xam nañ ni départ na. <laughs> Kader waaw. nga ni Kader ñun. mais Yirim dafa départ. te xamul ni. te gars yi yëgaguñ ñu départ na. ah Kader ñoom yëg nañ ni départ na. Kader moom xamul ni moom. ay <laughs> saa xamul ni moom. fa. départ na mais ñun xam nañ ñi maga fa. kon ñun mën nañ koo takk yóbbu. et pourtant yóbbu ko mais Kader xamul. yóbbu ko caaray pikiir. temps nee na xam na ko mais Yirim. Hmm. maanaam dafa dem moom yëguwut ni dem na mais ñun yëguguñ ni yirim dem na léegi kon kenn du ko fa dañ koy bàyyi mu wëndeelu kenn du ko yóbbu jaaro xam nga kon moo tax ma ne la carrière ko yóbbu fan ñun la ñuy déglu kay kon kay xam na ne léegi moo lay boobu gën a té téppaliku quoi mm. leneen li nekk mooy mooy yirim nag euh, boo dégloo ci wax ji mm. daf ne ragalul kaso mm-hmm. wax ni moom kaso sax moo ko gënal Yérim da nga koy delloo taxawaayu lëkk la bëgg a taxaw ak bukki la nga fi doon ki jox waaw mburaake ma mburaake ma ah. maanaam li mu ragal hmm. moom la bëgg a wax ni da ko ñeme te ñemewu ko parce que dafa am yu mu war a wax yoo xam ni hmm. comprendre nga xam na ni mën na cee dem kaso ah. léegi nag muy wax ñii ne leen ragaluma kaso da da leen di eh, préparer maanaam bu ko defee ñii ne lan la ragal Mm. mais li mu ragal moom la teg ci taabal ji wane ni ragalu ko. même dee nee na ragalu ko de. waaw ah, mais moo tax booy yi le fait que ñu def indil ko. boo ah, xam ci lañ ko wan ne ko. moo tax yirim kiim bi dafa juddu rek maanaam plan bi dafa judd rek toj. Mm. maanaam fi mu doon bëgg a laaxatu. booy dañoo ñëw nekku ragal kasoo ngi nii tapé kasoo ngi nii. day wax rek parce que déglu leen ko fii li mu wax. waaw ndax moom garde à rek la doon nettali ci lii. nee nañu boole yirim boo seetee dafa yóbbu kaso bi. kaso bu neex la yóbbu boppam maanaam même bu ñu koy tëj nañ ko tëj ci kaso boo xam ne dina mën a wird a calme mën a entraînement ndekete yi fàtt li ko ne kaso bi ñu la yóbbu woon mu naan foo xam ne waruñu faa yóbbu ku kii ak yow waruñu faa yóbbu am xar waruñu faa yóbbu am xar ñu fa yóbbu nit comprendre nga dafa programme woon ne même bu ñu koy yóbbu kaso sax léegi xool statèm yóbbu ko ci kaso boo xamante ni bii da mën a wird mën a geb léegi moom da doon dàqanteeg euh, kii yi kon euh, kaña yi nga booy yóbbu ko ca kaso ba nga xamante ni bii fa la mosee li nga xam ni moom. mooy lu metti mhm. waaw en tout cas mais li ci am solo léegi neena na dinaa ko ba xotteeku. ba teppee quoi moo tax sax may a bu sa bind mu ni. ñun damay mën a bu sa répondre à Yirim Seck. Mhm. mu ni normal bin bin bu teppee ko. day tasaaroo di wër di rajaxe. waaw waaw loolu la de wax waaw bin bin. may mën a bu sa bu ba tasaaroo day wër di rajaxe. tontu na ko bu daal waaw xam nga Yirim. Yérim Yérim mi ngi nii quoi maanaam moom léegi mu ngi nii xam nga maanaam da ngay gis nit dafa am yuy defar nit beneen saay da ngay gis nit ñoo xam ni ñemewuñoo jóg rek dox nii ñemewuñ ko déedéet lii si maanaam bu ñuy dem fenn sax dañuy am mm-hmm. délégation boo xam ne ñooy mooy defar seen personnalité maanaam ñoom mm-hmm. kese bu ñu génnee dañuy yëg ne duñu dara am na ñu mel noonu waaw waaw am na ñoo xam ne noonu la moo tax bu ñuy dem lu ne wër leen. c'est pour defar boppam. Yérim nag bi mu ñëwee dafa am lu mu defaree boppam xam nga la defaree boppam mm-hmm. mooy li kiy wax mm-hmm. jeune jeune Afrique. Mm-hmm. ak président yi mu doon loolu loolu la nappee booy yi ci plateau yi léegi nag Yérim bi ko gars yi di futti benn par benn par benn par benn par benn ba mu ne sundum nii moo tax gis nga ko. nappoon na mm. waa ji ah, dañ ko futti nii. waaw ah, dañ ko futti Yérim fi buy wax. yërim ngay gis quoi mais bu njëkk ba buy wax léegi xooloo woon yërim gars yi dañoo fexe woon ba buy wax da ngay gis ni ki doon toog ak président sàngam ki doon toog ak président sàngam mooy wax ki doon toog yërim ey kii comprendre loolu nga doon jiital Jeune Afrique nga teg ko ci taabal ji yërim buy wax yow léeg-léeg mu dugg ci wax ji wax ni président sàngam bi ma ko woowee téléphone bi ma laajee ne ma yërim lii dama bëggoon nga conseiller ma ji xalaax xalaax yaa ngi dégg mooy xam nga léegi bu ko defee journaliste bi mu toogal nelaw na fekk kenn woo ko non alaaji billaay kuy def ak interview def ay interview ak ay président kay ah, yeneen la da leen doon napp yërëm lay boole gars yi baa ko yërëm dafa ñëw personnalité boo xam ni maanaam dafa créer personnalité créer ay kiyam waaw bu may interview diw président Sangaw nga xam ne da nga koy dégg. mais ça est ce que loolu dañ na est loolu dañ hmm? daa am loo xam ne man dama ko. tëral mais dafa doxatut. non dox. mais Yérim émission bu bu mu def bu fekkee beneen émission du dox. mais yéen moo ëpp ay mais parce que xale yi dañuy bëgg lu ñu ko lu ñu ko faari. mais dañ koy kookali ji dañ dafa dox nag dafa dox. gisoo même commentaire yi ay carton rek. dañ koy kookali ji kookali. booy xam nga booy yi ma wax leen booy yi non seulement dañuy ñëw ngir luñ la. nga noppi ñi lay seet si ñëpp ñi lay seet si ñëpp lan moo leen tax a jóg. ñu ngi ñëw di capturer pour xool. lu xam nga koo xam ne am na koo xam ne mi ngi toog di seetaan son yi mi ngi déglu son yi mais am na koo xam ne kii ñu naan ah taxal ba déglu ci saa yi ngir wut lu mu ca am duma ko. Euh, loolu la ñuy bëri mais tamit alaaji. waaw euh, xam nga ni moom am na ay doom yu mag est-ce que mënta kii mu noppi. kan yéen a. waaw dañoo noppi na waaye mu ñëwaat. ba xotteeku nañ ko bàyyi ba xotteeku noppi parce que am ko daa war naa nar a noppi waaye day wax ba xotteeku. xoolal nañ ko ba mu wax ba xotteeku. Mhm, mhm. d'accord na wax ba xotteeku. Mhm. ñun moom wax dëgg fa yàlla. suñu yoon ci bu xotteeku bu xotteeku. waaye daal am na nga xam ne yërim yërim statut la nag yooyu daal journalisme waaw ci journalisme dañu war a fàttali xale yi ëllëg ñu wax ko yërim mooy kan la def fan la demoon président yi mu toogal yërim mooy kat yërim waxuma la boo ko nettalee mu yóbbu la ci yoon de. mais waaw waaw mu yóbbu la ci ah, yoon de eh, yërim gestuel li ngay wax nii bindal booy bind livre ci yërim mu la yóbbu. mais mais mais ça ah, yërim gestuel xoola communication gestuelle bi nga geste yi muy def. gestuelle ah, léegi ci gestuelle yaa ngi ci gestuelle foofu la dugaloon Thierno kii. baax na Thierno ay jë. <laughs> non ma daa fan ma daa fan yërim de. wala yërim yërim fii la ñëw. Eh, yërim fii la ñëw yërim nappoon danoon nappoon wër na yàlla. Eh, wuy ma yërim fii la ñëw. Mm-hmm. jom président Diomaye wax ba pare Yérim amul dara lu mu jox daan boo xoolee ci sa sel bi muy wax bi mu yeggee ci kii bi xam nga indiwaat image bi lekk Thierno Diop xëy naan ma indi ma kii bi bi foofu li mu wax noonu ni mu man ay Thierno Yérim balaa jeex na voilà jeex na wallaay na nekk ci ay gestes nañu bu baax gërëm joxante ab dig ba suba ci wax bi incha allah mm. ala jërëjëf son yi bu amati solo vraiment